asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu annabiu awlaa bil muminina min anfusihim wa azwaajuhum mbokk yi maa ngi leen di nuyu bokki àdduna bi yépp di jéggalu bu baax nag ndax sama wax bariwul waaye dañu laal koo xam ni jéem naa noppi mënuma ko muñ jéem naa noppi mënuma ko muñ jéem naa noppi mënuma ko muñ muy ki nga xam ni mooy sangu jinne yi ak nit ñi mooy sayidul jinni wal ins muy sayiduna muhammad mi nga xam ni ku yàlla bind moo tax moo ñu gën ndeyam baayam askanam fal urbu xayru unaasin summa xayruhum bu ñuy wax mbaaxu arab yonent bee tax bu ñuy wax mbaaxu quraish yonent bee tax kon kooku way juram wu góor way juram wu jigéen ku leen tudd war nga caa wax lu rafet ndax min baadi ma qad xalaa waawun yuqaalu laha ha anti xummilti badran sayidal umami ba leer gi toxoo ci Abdullahi ba dem ci Amina am juróom benn weer lañu fëgg yaayam Amina ni ko ki gën ñépp yàlla jox na la ko ki gën ñëpp nag ku gënul ñëpp du ko ëmb gën ñëpp ku gënul ñëpp du ko ëmb yaayu yonent bi naqiyat an saa'iri tuhami set na wecc ci lu ñuy tuumaale nit kon bu yàlla dogalee ku ne wax Moustapha Jaxate li tax mbir mi diis ci man mooy Moustapha jaxate dafa nuruwul ko war a wax wax ji ndax ñu bëree ko sopp waaye tey ñu bëri tey nañu ci Moustapha jaxate ndax lii mu wax ci yonent beeg way juram kon may ñaan bu dul woon li nga xam ne yonent bi du fayantoo lu ñaaw wa laysa xayrul wara yajzi bi sayyi'atin yaafu wa yasfaxu safxan an musiihim yonent bi mësula la fayantoo lu ñaaw su dul woon loolu Moustapha Jaxate tey du am jàmm waaye comme yonent bi da daan baale yonent bi da daan jëllale yonent bi da daan jéggale maa ngi ñaan Moustapha Jaxate nu mu gën a gaawe na dem ci télé yi mu daan wër yépp baalu adduna bi baalu jéggalu sunu boroom jéggalu adduna bi nag jéggalu jinne yi jéggalu doomu aadama yi ndax dafa laal seen sang ku ñu laal ci réew mi mën nañ laa muñ waaye yonent bi nag ku ko laal ñu wax Moustapha Diakhaté li ma lay dénk cofeel yi ma la ëmbal ndax say kàddu ndax sa melokaan waaye bi ma déggee nga wax lii dafa mel na dama feebar waaye ni nga ñemee tele ñemee ko rajo ñemee ko plateau lu ma lépp loo daan waxi na nga ko teg te wër télé yépp tagg yonent bi wër télé yëpp tagg yonent bi te jéggalu nag adduna bi lii rek laa lay ñaan ndax yéene wu ma la lii la dal wallahi alazim yéene wu ma la lii nga dal man damaa jàpp ne rek da ngaa juum nit nag su juumee fa mu juume nafa fa delluwaat wax ni damaa juum maa ngi jéggalu adduna bi jéggalul bu baax mustafaa maa ngi lay ñaan diire ngi nii bu nekk ci sa kanam télé boo daan dem di fa wax bàyyi lépp loo doon wax te wax ci yonent bi te baalu te tagg yonent bi loolu nga xam de waaye wax ji nga wax laal nga xolu ñëpp nag te boo génnul war ci télé yi du baax ci yow nag génnal nga baalu ndax yéene ma la dara lu dul jàmm ndax nit ku yiw nga nit ku baax nga waaye sa kàddu gii moo ma jaaxal ci yow te nag nañu wàññi wax maa in nadimtu ala sukuuti marratan waaye walla wala na nadimtu ala kalaami miraara nañu wàññi wax wax ju bari baaxul lu ne nga wax ci wax ci loo xam wax ci loo xamul te yonent bi nee na ñi ëpp safara ñi leen fa dugal seen làmmiñ ci la bokk loo xam wax loo xamul wax luy loo xam ci lii ngay wax yemal ci li nga xam te nga baalu àdduna bi nag na nga baalu de demal ci télé yi loolu lay répété demal ci tele yi ni nga ñemee te plateau nag plateau yépp wër ko nga baalu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen mbokk Idrissa Gueye responsable moralu fédération ashaabul kahfi moo yëkkati woon kàddu gi ngir ngir jàllale ko ci mbokk yi ndax yonent bi rek la ñu am mooy xaatimi nabiin mooy imaamil mursalin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.